mais sama xarit la sama rak la sama confidente la quoi mais peut-être amour bi ma am ci sama liguey ak affection mom bi ma xaw am ci mom momay pousser ci lolu mais du leneen quoi fofu la yam est-ce que gëm nga ne góor ñu bëri lañ la ñé ci lolu pas pa yaa ngi génn seen TV mais yaa ngi génn seen TV ak yaa awa. non bu ñepp amoon pistolet pour wara am kenn kuñ jam xalé yu góor yëpp laay wax man lañu jam man ay bal dina bari sama yaram. bu ñëpp amoon pistolet boo xam benn balaam ñu war ko jam benn nit ñu bëri ma que fi ma toog noonu bëri na ñu fa bëgg toog parce que yaa ngi yaa ngi toog yaawa boo xam ne ñoom ñi koy gis à la sax buñ ko gisoon en face dinañ ma rey parce que face bi la gën a mën a à def nii pour ñu gën am <laughs> pour ñu gën ma mën a rey donc face à face yu rek ëpp na donc gars yi nañ gën a waajal xam ni et puis émission bi fi mu jëm mooy gën a neex ci man parce que am na ay yéeg ca kaw mat laa ay nonge nonge yooyu yëpp dina ci am xam naa ne moom dinañ gën a pare gën a <laughs> waaw incha allah ca kaw fauteuil yeeg fu ne dañ fa ànd macha allah waaw moom moo xam naa di gën a neex ci man gën a metti ci ñoom <laughs>